su may foo sax dafay gën a neex. si man la Viviane tooru na boppam nag ku mën def. bu dee lépp dëgg la kay yeneen artistes yi gém bi neex asalaamaaleykum sama waa ay see bëggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax baax a baax xaaral ma làkk leen anglais hi guys hi everyone you know the vibes so today bëggee naa leen sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm yàlla leen yàlla defal sutura xéwal xaalis bu bëree bëri gudd fan wér gu yaram wax leen amin amin sama gars yi comme d'habitude ma leen ko wax chaque vendredi dama len dugalal vidéo peu importe la vidéo actualité xawma lu muy doon waaye bu vendredi joté dina len fexe ba loqatil len vidéo ñoo tégal len sama gars yi la vidéo du commencer merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu fekkee ngi may seetaan parce que seen bi chaque vendredi dama len dugalal vidéo bu len faté yéen ñi joué woon si promo code 21 F la saa boo di nga boni cent francs lien bi naa ko def si commentaire Viviane dafa génne ben affaire xawma malax la xawma rab la xaw ma diril la xaw ma mbalax diril la mais Viviane ñëw na teg ay lyrics sam teg na nee na ku ko ñemee si rap xaw ma lan ba ci nee na day fay Omzo ak Dip easy je les étais easy donc Viviane bi moo fit sama gars yi ñu xool li Viviane génnee ñu xool lyrics yi xool boo xam tàng na wala tàngul dañ koy seetaanandoo man su ma xamee mën na leen Viviane lii la wax suma ma xamul nag mën leen man lii xaw ma ko ngeen wax ma lan la Viviane wax ci commentaire man complexe ma nekkoo ci yooyu sax tëj na buntu mu maestro on the beat mais bit bi sap bitu lii xaw ma bitu rab la xaw ma bitu lan la lii bitu vivi queen si rap ana na ma ñu vas si rap vivi Sen queen si rap ana na ma ñu vas si rap ñu vasi ñu la wax wala ñu basi sirap manam man jëm comprendre na lim bëgg wax manam am na ko ko ñëmé ñu dem sirab manam kon dafa bëgg wax que ni mom lay rap ku mën na def lolu clip lolu loolu bi tuddu titre bi gis ngeen flow bi flow bi flow bi ñu arriéraat ñu xolaat vivi sen queen ci rap ana ko ma ñëmé na ma top ñu ci rap queen ci rap ana ko ma ñëmé na ma top ñu vas ci rap vas xawma lu mu wax yeen di mën leen Oh, vivi seen commune Sirap ana ko ma ñëwee ma topp ñu vas si Sirap ku ko ñemee na ko topp ñoom ñaar ñu rap loolu la bëgg a wax xool dox nank te kenn du ma dab. ko dab maanaam Viviane neen moom day dox ndànk te kenn du ko dab moom kon Viviane moom bu dawoon moom fan la fan fan la nit ñi jëm fan la nawlee ni jëm ñu xool. te kenn du ma dab ko dab flow. taxawal gi fii yàlla la wax nii. ndànk te kenn du ma dab flow technique di rap am jàpp. dox ndànk te kenn ko dab flow technique di <laughs> la muñ lii si rap bi ñu continuer. ana ku ma ñeme jaaba ana ku fi ñeme fecc comme wóorkis jaaba. ana ku ko ñeme jaaba ana ku ko ñeme ah, sa taxi bi bëgg a Viviane yow tamit xanaa nekkoon waykat Viviane mi tàng na de ñu continuer. ana kuy ñëw jël ma lyrical technique rek kaay ñu ëffal ñu. i <laughs> Viviane ñëw na samp boppam samp na boppam dégg nga li mu wax nee na nee na. ana kuy ñëw jël ma lyrical technique rek kaay ñu ëffal ñu. nee na ana kuy ñëw jël ko lyrical technique. xaw ma lan na ñëw ñu ëffal ñu maanaam moom ñëw na samp boppam nee na ñëw na samp boppam ci rab bi lyrical technique xaw ma lan ku ñeme na ñëw ñu ëffal ñu kan moo ñeme Viviane woote na guerre nag nee na ku ñeme rek na ngeen dem ñoom ñaar ñu ëffal leen <laughs> Viviane wóolu nga sa bopp nag. lyrical technique rek kaay ñu ëffal ñu ma fët la ci rap fët la ci afro fët la ci sunu mbalax bu neex bi fët la ci beat yóbbu sa fit teg ko ci drill bu neex bi. Viviane nee na bu la ñëwee. mu Viviane nee ku ñëw ñu ëffal leen ñaar dalay lay fët ci rab ah, fët la ci mbalax moom bi muy def fët la ci laay laay li la ma fët la ci rab fët la ci afro fët la ci sunu mbalax bu neex bi fët la si mbalax bu neex bi maanaam maanaam gis nga dip ngaa ko bëleen de Omzo ah Viviane mi ngi leen tooñ Viviane ñoo ne dugg na dugg na seen domaine nee na ku ñeme na nga ñëw mu fët la ci rap fët la ci afro fët la ci seen mbalax bu neex bi maanaam moom moom mën a loolu la bëgg a wax hmm. nga xool. neex bi fët la ci bit yóbbu sa fit teg ko ci diril bu neex bi. Eh, Viviane ngi diril sa fit teg ko si diril bu neex bi non c'est fou c'est xaw ma moo ko bind ko baram bind ko mais elle rappe bien si man elle rappe bien am na ñuy commentaire nee nañ Viviane moo dàq rap kooku moo dàq rap ñooñu moo dàq rap ñii ak ñii damay bañ wax am ñu mer waaye waxuma <laughs> ñu xoola ah. yokkantiku sun nga ñëw tànk yi toog yi dëgg feeñ raccourci ñu suma seen ndax fi ma jaar moo mel ni weer way lu neex si diril bi lan la lan la waxaat lan yokkantiku sun nga ñëw tànk yi toog yi dëgg fii rakkul si ñu suma seen ndax fi ma jaar moo mel ni weer yokkantiku sun nga ñëpp tànk yi dëgg xawma lan c'est que man nag ah, man man dama am problème mu déglu son man xawma man man son fu déglu ko ba liir lirik si doo ko xam lépp lu mu wax man xawma man sama nopp yee baaxul man comprendre ma yokkantiku sun nga ñëpp suma juumal fekkee yéen yéen a ma gën a baax dégg-dégg dimbali leen ma ci commentaire la lan lan la Viviane wax fii fii yokkamti ku sun nga ñëw tànk toog yi dëgg feeñ rakkul si suma seen ndax fi ma mu mel ni ween yokkamti ku sun nga ñëpp tànk yi toog yi dëgg fii I don't know I don't, know but peut-être clip bi dina bind lyrics ñu xool stop ah yi dëgg suma seen ndax fi ma mu mel ni ween raccourci musu ko seen ndax fu ndax Viviane nee fu mu jaar day wen day mel ni weer maanaam moom fu mu jaar day leer que weer gi dafa leer Viviane dëggal na boppam nag eh Viviane nee na li doon raam xaw ma lan moo doon raam nag mais lan moo doon raam Viviane lan la bëgg a wax fii nee na li doon raam jëm si ñag bi Viviane moo ko fatt moo ko téye moo tax instant yi coow jiwul xaw ma kan lay waxal nag ah Viviane war naa wax lii yéen de bar yéen de bu dee xam ngeen li Viviane wax yéen coow dina bëri xam nga dafa xam nga yen yéen doon wax naan lii si njëg bi jem jëm mais Viviane nee na lii raam bu demee doon doon dem si kii moom moo ko <laughs> Viviane yi ban la de Viviane day wax émission wax naa leen ko nag ma wax donc garaaw bàyyi ma aju laa la ci am da moo ko fight game bi moo ko téye lim ci am daf koo fight loolu moom c'est vrai Viviane Viviane Viviane def na fa lu ne produit na lu ne maanaam lu mu am ci game bi moom daf ko liggéey daf ko fight waaw whatever su may foo sax dafay gën a ne suy foo ma la Viviane tooru jëpp Viviane mi sapp na boppam nag Viviane sapp boppam nee na ku na def maanaam ku mën na def bu dee lépp dëgg kay yeneen artistes yi génnee leen bi neex game waykat be kii mbalaxmaan yi ak rappeurs yi nañ songante nañ songante. Viviane toj na affaire bi non c'est c'est c'est fou c'est fou ñëw na nee na ku mën na def